quinze millions de francs CFA la commune bu Touba yëkkati ngir jébbal ko ñenn ci askan wi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bu sell bi te seen loxo jotul seen i ginnaaw loolee bàyyi ko ci juróomi téeméer ak juróomi dossier yoo xam ne moom la déposé te dossiers yëpp dañ leen a validé. 2020 bi ak 2021 bi dajale nañ ci donc lu toll ci 505 dossiers yoo xam ne teg nañ ko ci yoon le trente bi commission sociale commune bi euh, te maire jiite ko yebal Baye Ndiame Ndiaye. mu taxawu lépp ak conseil ya ca bokk yëpp indi nañ fi 505 dossiers muy juróomi téeméeri dossier ak juróom ay borom aajo yoo xam ne soxla woon nañ commune mu taxawuleen ci seen i mbir dossiers yëpp ñu indi ko commune validé lépp financé lépp pour un montant de 15 millions. ñi nga xam ne ñoom la commune bi di dimbale te seen loxo jotul seen i bokk na ci ay handicapé ñu feebar ay ordonnance ay sëriñu daara ak ñeneen ak ñeneen. biir lu yooyu nag am na ci li ci gën a am solo mooy ay malade ñoo xam ne dañuy faju ci hôpital yi Sénégal yëpp te ñi leen laaj lu lu lu jéggi dayoo loo xam ne seen loxo mënu mu mayu leen ñu fay loolu. am na ci ay jigéen ñoo xam ne dañoo imbi par ñaari doom wala par ñetti doom am na ci ñoo xam ne aussi dañoo lakkale am na ci ay am na ci ay handicapé am na ci ay yi daara am na ci ay boromi kër yu góor ay jigéen yoo xam ne seen jafe-jafe rek mooy am nañ jafe mooy seen loxo jotu seen ginnaaw pour ni ñu war a taxaw seen njaboot ñu taxawoo ko. mboolem dossier yi nga xam ne nag ñoom la ñuy dimbale nekkul ne mairie bi moo ko traité. waaye CPRS di kuréel gi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllum social ñoom ñu amal enquete bi ngir ndimbal gi ñu jox ko ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo. bi nga xamee ne nag lu mat juróomi téeméeri nit ak juróomi nit. déposé nañ fi ay ndimbal yoo xam ne dañoo soxla ndimbal du ñun nag ñoo koy traité commune du ko traité dañuy dem ca CPRS mi nga xam ne moo fi nekk gouvernement bi teg ko fi wane ne ku am jafe-jafe da war a dem leeral ko ko moom moo lay teg ci yoon woo xam ne nii ngay def nii ngay def nii ngay def ba ñëw fii te monsieur le sous-préfet di kilifaam loo dossier boo fi gis nii ci 505 dossiers yi fi ñëw te moom la dem mu def enquête bi bu dee ku nekk hôpital mu dem ba mu xam ne kii kat ci jamono yii mu nekk étape bii mu nekk am nay jafe-jafe mu door bind loole indi ko ci commune bi. jëf ji nag mu nekk loo xamante ni kilifa yi rafetlu nañ ko lool rawatina ki nga xam ne moom moo di sous-préfet bu ndaam mu rafetlu doxalin wi te ñaan yeneen communes yi ñu doxalee ko ni nga xam ne noonu la commune bu Touba doxalee. dégg naa mag bu baax bu ne nit ki bu la ko nee ko jaajëf ndax am na ku xam la ko wax defu ko donc monsieur le maire yokk sa conseil municipal maa ngi leen di féliciter ci li nga xamante ne bii moom ngeen defal seen askan. loolu itam ñun ñëpp war nañ see jànge ndax am ñoo war a dimbale nekkat kenn du déposer mairie service bi nga xamante ne bi Cissé moo ko jiite di service de l'État képp ku bëgg soxla si ndimbal li foofu ngay dem déposer loolu yaakaar naa ne bon pratique la boo xamante ni bii commune yu bari ci Sénégal war nañ cee roy. mbooleem ñi nga xam ne nag ñoo fa teewoon te déposé seeni dossier bala ñu fay bàyyeekoo kenn ku ci nekk jot nga sa enveloppe mu def koppar yi nga xam ne moom lañ leen dimbalee.